al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabbaan di wax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yi te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj nee na taalibe yi nga xam ne bu safar teroo dañuy taal ay pekaar ak di xumbal ndax loolu ci njàngaleem sëriñ bi la bokk euh, taal pétard du ci bokku ci njàngale lislaam kon bokku ci njàngale sëriñ bi ndax ay lor la am po la yàq la te lor doomu aadama ngi ci ndax ñi nga xam ne dañoo wéradi wala da leen di tiital loolu lor la te ab jullit wërtal lor mbokkam rawatina def ko te ko tey te sëriñ bi li mu santaane mooy sant la ko yàlla sant yàlla nag mooy xéewal li ñu jox nga def ko fi ñu la ko def loo loolu la ñuy sant yàlla waaye du am po du ay caaxaan li ci des fukki fan ak juróom-ñett ci safar la sëriñ bi santaane ñu sant la ko ci yàlla kon nit ñi dañoo war a liggéey ne ci la war a nekk ba bis booba jot ñu sant yàlla wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am ay ñam yoo xam ne euh, lañ koy defaree garis mbaam da cay bokk ndax loolu dana dagan ci ab jur mu di ko lekk loolu di jullit sañu ko lekk ci lu dul lor maam moom lépp lu ci bokk rekk dafa sobe la lekk ko dëganut lor nit ki àgg ci boo xam ne bu lekkul dee fi fi nga ne bu fa àggee sañ a lekk medd daal xëy na foofa waaye fekk àggu fu moom sañu lekk loo xam ne leer na ko ne lu bàyyi ko ci mbaam xoox mi ngi ci mbaam kër yi yooyu lekk leen dëganut wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne day yaxantu am ñetti place ndax bu waxtu yu jotee day régler place bu ne mu génneel ko asaka am wala mën naa boole yëpp génne ko asaka waaw moom la asaka war kon alal jëm moom fu mën a nekk alal jëpp lay boole ba xam ne am na ñaata ñaata joojee bu ko divisé quarante bu xasee man nisaab bu ko divisé quarante loola mooy nisaab bi mooy mooy asaka ja loola lay génne loolu nag fu mu ko génne baax na waaye na nekk mooy asakay alal jëpp bu ko neexee nag bitig bu ci nekk bu demee ba xam ne am na nisaab bitig bu ci nekk mu réglé dafa fa nekk génne asakam waaye li a jàpp moom mu réglé yëpp ba xam ne na nangam ci alal ci mbooleem place yi am mu bu xoolee mat nisaab mu divisé ko quarante la ci war a génn loolu mooy asaka ji mooy asakay alal jëpp wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ak shafa ak wiitar saar yi ñu baaxoo tari mooy ginnaaw fatiha suratul a'la ak kaafiruuna ak lixlaas ak falaq ak naas yooyu rek lañ ci jàng wala nit ki sañu jàng yeneen saar waaw jàng saar yooyu dañ koo sopp ci mazhab bi waaye ku mu neex it jàng ci leneen moom yeneen saar wala yeneen ayat yi sañis na ko waaye nag sopp nañ mu doon saar yooyu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne borom këram daa am fenn fu mu liggéey waaye léeg-léeg dafay ñëw bu dikkee nag nee na daal bu soxlaa soxna si lay tër si waaye bu dul loolu day ne ca saal ba eh, di di di ba guddi gi sori laaj boobu soxnaam nan la war a def waaw ak ànd de wéttal ci la bokk mais bëgg borom kër di wéttali soxnaam bu ko soxlaa bu ko soxla wut moom toog ci wetam ñu dend di waxtaan di bàyyante xel loolu ci li ñu santaane ci diggante ñaari way dencante la kon borom kër bi tey doog ci saal ba rek bàyyi ko fa moom na waxtaan ak moom ci loolu xam ne ko lislaam kat li mu bëgg mooy sunu ànd wa ashiruhunna bil maaruf maaruf jooju nag laaj na di waxtaan ak moom di féexal xolom di dalal am xelam boo ko soxlaa boo ko soxlawut loolu bokk na ci li rafetu ànd gi te noonu la ko lislaam bëggee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee bu ñuy jullee neew kabar bu jëkk bi dañuy yëkkati loxo mu tolloog mbagg wala ay nopp ndax yeneen kabar yi nag daana dañuy yëkkati loxo wala mën nañoo wax allahu akbar rek waaw ci masa bu Maalik day kabar bu njëkk bi ci la ñuy yëkkati loxo sopp nañu yëkkati sa loxo bu mu tolloog say mbagg wala say nopp waaye yi ci des yëpp nag allahu akbar rek ngay wax jarut yëkkati ay loxo jarut nag yëngali loxo sax ni ko ñenn ñi defe nga xam ne moom du yëkkati du lu kenn xam kon eh, kaw kabar ji des yëpp rek wax allah akbar loolu lañ ci santaane wallahu taala alam mbokk mi laaj ñaa ne koo xam ne day liggéey transport dañ koy faral jox nag carte woo xam ne gasoil la léeg-léeg léeg-léeg nag nee oto boppam gasoil manqué ci mu leb ci gasoil boobu nga xam ne moom lañ ko service bi jox moom la ko service bi jox waaye saa yu fay koo na da koy delloo waaw bu demee noonu di baax na bu fekkee ne jamono yi ko yam koy leb du doon gàllankoor ci liggéey bañ koy liggéeyloo waaye bu fekkee nag day leb waxtu woo xam ne fekk na mu liggéey laaj ko laaj mu war a dem fen te leb gam leb tax mënta dem foofu ci oto boobu waaye nag tooñ la waaye bu ko leeree ne eh, fiñ ko soxla fépp mën na faa dem ginnaaw bu lebee du tee du yàq dara ci liggéey bi te it bu bu fayoo dana fay moom dara nekku yi wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na wird xuus dañ ci sart jàng alquran mu ne ndax njàng mi day doon njàng muñ toftale nga xam ne da ngay ci kaw saabu kaamil bi jeexee nga tàmbaliwaat waaw loolu de mooy li gën ndax nga jàng alquran jëpp waaye nag su ma nee yem fenn it la mën a jàng mu di ko jàng it baax na li gën nag moom mën a jàng alquran jëpp moom muy jàng lépp saa yu jeexalee tàmbaliwaat allahu taala alam mbokk mi laaj nee na jàkka joo xam ne amuñ ilimaan duñ fa fal ku ñëw rek mën naa jiite ndax jàkka jooju bokk na ci yi ñuy teree daf fa ñaari mbooloo maanaam mbooloo julli meneen mbooloo ñëwaat julli yi ñuy teree fa julli ñaari yoon julli mooy jàkka ju am imaamun ratib limaan ju fa sax di jiite waxtu yi kooku la ñu wax ne bu ñëwee ba jiite ba noppi meneen mbooloo mu ñëw bu ñuy bëggee julli julli mbooloo nañ génn jàkka ji waaye jàkka yi nga xam ne amul imam ratib lu mel ne jàkka yi ne ci mbedd yi wala ñu ne ci jay wala yu mel noonu garage yi nga xam ne ñaare lay doom ilimaan jàkka mbooloo mu ñëw mën nañoo julli seen julli mbooloo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bokkoon ci njàngum kaamil nee na waaye nag jukki bañ ko jox daa fekk ay weeram yóoru ko te gisam neexut ba njàng ma dal jàpp na ne jàngu ko njàng mu jaar yoon waaye ba mu delloo ci kër gën a jàngal na ko waaye la gënoon nag moom ba mu xamee ne ay weeram yoru ko rek mu joxe jukki ba xam ne daa am gànt ndax lenn li lëntal la wante nag ginnaaw bi jàng na ko yéene kañ ko doon jàngal yool bu moom baax na waaye lu mel noonu ab jullit euh, du am kersa ci loo xam ne dañ ko koy def loo te jamono jooju mënu ko def moo xam ne am naa ci gànt ndax mën naa bu ko wax sax kenn aal koy weeram mën a jàng wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am bagaas bu mu jënd nee na quatre mille la ko jënd am ku mu ko jaayee cinq mille nee na ginnaaw bi ma ne ko da ngay dolli mu do deux mu dolli ko deux mille muy laaj ba xam ndax deux mille yooyu law na ko wala déet waaw bu fekkee ne da ngeen a waxaale ci cinq mille ba juboo ci moom cinq mille nga ko jaayee kon cinq mille la la war a ndax loolu ngeen juboo jaay ak jënd moom ci yu mel nii la ngeen waxaale ba juboo la fekkee juboo ngi cinq kon cinq mille la la war a jox kon waroo ko caa teganta laxuma mu moom nga wax ko ne dolli ma dara mu békkee njaay ma coobare woo mayaat la deux bu fekkee dala ca jublu may la ko nag waaye moom mënta bokk ci njëgg bu fekkee ne juboo woon ngeen kii di njëg gi cinq mille la ba noppi kon la fasu na dolli gi moom bu fekkee da jublu may la ko suba lu baax la waaye fekkee da ngaa bëgg wax ne ko njaay ma nga jaayoon baaxut nag te te te eh, kon da nga war dolli mbaa mbaa du baax loolu moom du jaadu ndax waxoon ngeen bu juboo kon ñaara maanaam mu xàcc mu mu nangoo xàcc delloo sa marchandise boo koy jaayee ci leneen nga jaayee ko waaye la ngeen façon ba tàggale ko ci njaay moom loolu moo wéy bu jubul bu la jubloo may day léegi mën na la ko may wallahu taala alam mbokk mi laa nee na autopsie bu ab jullit faatoo ndax sañis na ko koo def waaw liy cosaan de mooy jullit dafa am worma bu faatoo niñ ko amee ba muy dund ba islaam nee na dammu yaxub néew mi ngi mel ne damm ab yaxam ba muy dund teewul nag boroom xam-xam wax ne bu fekkee ne autopsie bi daa am maslaxa bu ko waral daganal nañ ko ni ki nga xam ne am na ci ñu daganal bu fekkoon te ne dafa nit jigéen ju faatu la te ëmb te yaakaar ne doom jàngay dund mën nañoo xotti biir ba ngir génn doom ji donte nag bu ñu mënee fexe ba génn ko ci dul xotti moo gën bu fekkee daa wan noon alal ju bari it dañ koy xotti bi bu ñu génn alal ji ci loolu moo tax ñuy wax ne bu fekkee ne am na maslaxa bu waral ñu di ko autopsie xëy na ngir am yaakaar ci danañ xam li ko doon ñu mën caa moytandiku wala boo ko wutal ko garab ba nit ñeneen ñi bañ caa loru bu ëllëgee wala lënt am ci ku ko rey te buñ ko autopsie xam loolu lu mu doon dëgg-dëgg bu dee ci anam gu mel noonu nga xam ne njariñul mbooloo ma ci nekk na ci borom xam ñu wax ne dagan na bu baax wallahu taala alam mbokk mi laaj ndax ku jàng alquran ba àgg si ci turu yonent bi sallallahu mu julli ci moom door a na ko waaw sañ na ko waaye nag su boobaa la gën nag mooy mu yàllu ko mu yàllu ko door a jàll ci njàngam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne ab baaj la gis mu am ndox neen waaye nag am na aw ñaay ci kaw gisul ndox nag mu falang ñaay wa tànq satala waaye nee na bi mu tànqee ci satala gisul ñaay yi mu jàpp bu fekkee ne bi muy jàpp daal ndox mi sëfut leneen lu dul ndox xeeñut leneen lu dul ndox yorut melow leneen lu dul ndox jàpp ndox ndoxu baax la ñett yooyu lañ ci xool na saf ndox na yor melaw ndox na xeeñ xetum ndox wallahu taala alam mbokk mi laaj ne dafa ñëw ci jàkk ji fekk ñu sëlmal ndax day def tahiyatul masjid dooru julli wala déet waaw bu dee waxtu naa fi la dagante yi dañ koy sant mu def tahiyatul masjid dooru julli wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku am robinet bu bees beesaay bi sotti ndox mi ndax dana dagana jëfandikoo wala déet waaw bu ko leeree ne la ko soppi day baaxuwuta ànd ak ndox xëy na lañ doon liggéeyee robinet bi matière bi ñu ko doon defaree moo ko sot moom moytu ko mooy la gën ndax loolu nekkatul ndoxu mut lax te ku jàpp nag ci ndoxu mut lax nga war a jàpp wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñaar yi ñu def ginnaaw timis ndax nit ki man da ko cee war a sësal rek wala mën naa def daf am ndox yeneen yitte dara ko def waaw li gën nag mooy mu sësale ko ci masalan bu jullee ci jàkka ci timis daal dem këram jullee ko këram loolu mooy li gën moom jullee ko sa kër moo gën nga jullee ko ci jàkka ji def yeneen ba noppi ca nag kon day mel ne sës giñ ko bëgg ñu sësale ko ci waxtu wi day mën na am nekkatu ko te doon naa fi rek waaye ngi mu tudd raatib moom bu jógee ci jàkka ji ñëw këram nga julli ñaar rakka yi lu mu def mu ko def ñaar rakka walla ñeent ba juróom-benn lu mu ci def baax na wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ay légume asaka war na ci waaw ci masab Maalik day dañu wax ne ay légume asaka waru ci ay légume asaka am na waroom xam-xam yu mujj yoo xam ne gis nañ ne yu mel noonu yëpp nag doon ci génn asaka moo gën a rawatina bu fekkee dañoo àgg ci di ci am loo xam ne alal yi ñu wax mbay yi nga xam ne ñëpp juboo nañ ci ne asaka da caa war a génn sax euh, li ngay am ci légume doo ko ci am waaye nag ci masa bi moom asaka waru ci wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na yi nga xam dafa am alcool nee na nu alcool bi toll ñu door koo tere waaw bu fekkee ne alcool mooy liy màndal day yéen ko instant daa waxoon ne lépp luy mandal lu néewam ak lu bareem araam na leen alcool mooy màndal kon lépp lu mu nekk rek néew gi ak bari ca nu mu tuuti tuuti te araam ci ab jullit mu jëfandikoo ko day doon sobe itam wallahu taala alam